assalamu aleykum wa rahmatullah mbaɗegol ngali ɓe tentu ngali jaayi fefene mbe fatu network jiba kan eɓaji ɓe kam fannaw fannala gue tentubake gue jaayi gue albisimlay ko ten ken najatabal programme ol konka kala ñami lokolo ko doroga fanninke kinin samanan pour naye kacca a kuolam yalon ko aɓe maman kan wola kono mbokk yi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax di leen ñaanal waay di ko sàkku si yéen di jol leen josen ah, wàccuwaay yéen mi nga xam ne yéen a faroo taamu safoo yi di seetaan yi nga xamante ne mooy Fatou Network ngeen jël ñu rek soppal ñu seen bopp ñu ne ñu jël leen rek bëggal leen suñu bopp ah li yàllaa ko dagam ba tax na programme yi nga xamante ne moo leen ñëw semaine bu nekk mooy suñu jàmbaar yi ñu jéem a leen andi nee naa leen euh, xale yi nga xam ne wala ndaw yi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu def dara si réew mi ñu andi leen waaye yéen bu ñu leen wooyee ngala ñëw leen ndax euh, waxtaane wuñ fi lenn lu dul yéen euh, jéem a leen a dooleel tamit jéem a fasal si liggéey bi ngeen di def bëgguñu xaar benn yoon ngeen dem ba nekk ne neen ñu leen di génnee déedéet bu ngeen nekkee ni ngeen nekk la lañ bëgg andi ñu ñaax leen si liggéey bi ngeen di def ah foo daat bi indi kees tey nag ku ñu fi am nag mooy benn xale bu stobon you know way suma sista bu baax la kokoy fat jañ jañ nar mbokk yi eh, de ngol ko nga fa ñame ngol ko lokum nga fanden kilin ke kilina samana fanden ko mi yalla ko bakata ko ke kam banko kan a fana na ma fon do ron ka je ko banko tanyato nga nyen programme sama ne pour kal wakilindi anen fanan kal de do ko kendo mi alon ko al bole ke kan but ngal ko man dal fanan kananan al fanan ah, dat you know celebrity life wo al ngola ne tema fon so bi nga misura jante wala fat jante afat diagne motimelno ko activiste wala mati afat diagne ata ka maman ka musolu sembentu yandi anim fanan ka kele ah, musul la ñantola afat diagne mo motimelno ko atata nun libanon ko ngabe mbengalo ñamen ko ah, yo okay then atata nun jeto aɗo ah, kata motimelno ko fana lotanon pour ka o musol sumurni nan ko tata nun libanon ka foyme ko human trafficking mialon ko ke bondi jande kate wafi bang tala bankol to ko mbe ko nyamaka ka kelele pour ka joko woy bang na banko kan fatou diagne welcome to the uh, Legend Show so tey nag yow lañu am. Mm-hmm. yaay suñu jàmbaar ju mag ji ban laax la ñu laaxee sax. Ah, ah yow iya, it laakal soose de waaw aca mun Na, mixan bi leen damay daj nga rajale fii ak sa soose yi waaw mun naa mun naa mun naa woori nii nag mbokk yi waaw di nuyu am képp koo xam rek yaa ngi déglu programme bi si time bii nii di ko dooree hmm. si his Excellency si président Adama Barrow ba si ku mujjee Gambia hmm. ki mujjee juddu at this moment hmm. di wax ñëpp asalaamaaleykum Fatou Diagne moo fi ñëw tey pour waxtaan ak yéen pour eete len té di len wax ne lépp lo len fay dégga tay dama bëgg a bépp doomi aadama mu jangasi dama bëgg bépp doomi aadama tamit mu gis si bopam mu éwo si because amna lo xamné ne ñu bari xamuñ ko si man ci suma site waye bëgg na tay nit ki suma xarit la bëgg na ko wax luma ma ta wax kenn ndax dégg si interview moo tax tey dafa nar special ah. dafa dara neex non di ngeen ah, dégga tay té nga dégga mm-hmm. dina dagan mm-hmm. ah jaay am nga gaay xamuñ ne suma xarit la waaw suma ha ah, bëna bakkan kay non non xamuñ waye tay <laughs> surprise bi dama leen ko wax barki démb bëgguma woon ñu xam ban bés la interview bi dama leen ne eh. interview bi dina ñëw hmm. waaye si ay bés la moo ñëw te ku ma interview suma xarit la te dinaa ko jox lu ma musuta jox kenn Gambia ak Sénégal am naa interview Gambia hmm. am naa interview Sénégal hmm. waaye dinaa la jox lu ma joxut kenn dama bëgg a ñu xam kan mooy Fatou Jagne dinaa wax lu neex ak lu naxari yëpp ah. dinaa wax suma eh, life lu ma dundee ah, ah? waaye dina am yoo xam ne dañ koo tegee aside muy side politics duñ ci wax waaye dama bëgg a ñu xam man maay kan waaw Kudelar ko lii nekkul programme politics. Uh, mm-hmm. It's not a political program. Mm-hmm. It's a program where we support and mm-hmm. inspire, motivate and encourage uh, those that those are doing something good for our country. So it is not a political program. You know, I have to make that clear. Lii nekkul political program amanke political program to make that clear. Yeah. So Fadiane can we Fadiane Fadiane can we jàngee. you know lan moo ko dugal si affaire yi activisme mu muy xeex uh, nit ñi seen seen àq ak yelleef waaw assalaamu asalaamualeykum once again di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaanaat programme bi Queen faat jaañ dafa jaar si lu bari kuy mm-hmm. Fatou Jagne Fatou Jagne dafa nekk benn ndaw boo xam ne mm-hmm. dañ ko dañ ko adopté maanaam dañ ko yore woon mm-hmm. waaw muy mu mu nekk si live boobu noonu. Mm-hmm. Faat Diagne xamut yaayam xamut papaam. Mm-hmm. ok um, Faat Diagne first day first time mu gis yaayam mu ngi am ñaar fukki at ak ñaar. that's 22 years maanaam 22 la Faat Diagne doog a xam kan moo ko jur. Mm-hmm. teg Faat Diagne ak yaayam ak ak papaam ñu si biir Gambia bi fii nekk fi. Faat Diagne ñu yore ko toomaayam moo ko yore yore ko yore bu rafet nag. you jàngal ko xamal ko you know ee ko. teg ko si yoon ak si diine. Fatou di dem si live bobu nonu di dundal live bobu nonu bem xam nga society buñ dëkk rek ñuy ko wonne ne jurut la mhm. So, ebo nga dem lijjante ji sa yaay mhm. duga gëna fi ak wax yoyu non xam nga suñ society bi de society we living in in Africa here mhm. especially Gambia diggante senegal ak Gambia ñun suñ live buñ dé live ok um, Queen man ma nekk di dunda dunda bobu nonu you know with that life ma nga am that stress again luma maa wax mooy dama bëgg a képp ku ku nga xam déglu programme bi mhm. pour nga janga si mhm. ne Queen dama am ñu bëree bëree ma am that experience ma gis ne mhm. ñu dunda this lives te ñu ngi ko sen seen boppam mu ngi leen jox feebar yow xam nga ma te gis nga nu ma am dama dee bëgg di siyaawante di déglu tamit dama bëgg hamne, ñu xam ne Fatou Jaye nekk na ne bu la te jigen bu dëgër la waaye dafa dunda lu bari with that struggle suma ma time pour ma ñëw leen rek daf ma toolu tey mhm. waaye na si ñëpp jànga maa ngi leen di ñaan lii na si ñëpp jànga mhm. ok maay dunda live boobu di dunda live boobu noonu ba am na time ma geexal um, school mhm. live boobu ak stress boobu mu ngi si man ku xamut sa yaay yaa ngi yaa ngi bugg a xam sa yaay ok waaye suma papa moom nag dégga dégga neexut ba neexut daf daan ñëw di ma seet si waaw waaye comme suma toma ma ak jëkkëram yore buñ ma yore dañ ma yore like amazingly mm-hmm. ñu ma amazingly like ñu ma ba nga xamné suma papa suma suñu waan ci si kër gi mm-hmm. suma bëggaan yobu sax gaay dañ dé bañ benn bés su papa yobu na ma ma fanan mm-hmm. ma fanan suma ma toma daf doon joy yal nako yalla yërem té ko arjana daf doon joy pour suma papa mu délo ci ma suma papa pour mu waan ci kër gi sax yow yow yow um, um, queen du daan bugg ñew every time si kër gi because su du daan neex gaa yi fekk mbugeel buñ ma amal. ak waaye man tamit nii doon naa pour xam kan mooy suma papa moom xamoon naa ko waaye suma yaay musuma koo xam. Mm-hmm. noonu laa dem bi that struggle ba ma jeexal school ma bugg a lijjante nag waaw. soo loolu ak sa schooling bi ba doo daan jël last year because of. stress bi ak ak trauma bi waaw am kuy nekkoon naa koo xam ne nag school bu ma musa nekka. Mm-hmm. ah dama doon nekka dara si school bi. moo xam damaa nekka counselor but I will be respected. Mm-hmm. waaye still now that stress mu ngi woon si mi si man. waaye loolu dem na si man ba nga xam ne affect na ma nag suma boori grade ma suma suma senior school. 10 11 12 I was a science science student. Mhm. waaye that stress ak that ma jox na ma soo coono ba nga xam ne am na time dama amoon stress ba nga xam ne su ma daan def exam du dee gis kayit bi lu ma dee def am dama am stress ba nga xam ne du ma dee xam sax lu ma dee def yóbbu woon na ma to an extent soonoon naa. you know soonoon naa trop bi da science science student nga war a nekk di dunda that life ma nekk si loolu nekk si stress boobu nu affaire bi di gën a bari like problème yi kër family problème si kër gi problème ak kër boo xam ne jigéen yi kase dañ laa xas dañ laa war lu nekk fenkat la di gisuloo sa yaay gisuloo sa papa maa ngi dunda di mag noonu waaye nekkul ne ki ma yore ki ma amee ki maay jox maay dunda moo ma ko def mm-hmm. waaye ñi si kër gi dañ ma ko doon def mm-hmm. su ma dégg rek laay nekk di noonu laa nekk di dundee Queen ma jeexal ma maay génn su ma demee suma papa daf maa dellu su ma demee because moom du dee bugg a dégg sax lan laa am problème foofu hmm. because dañ dee am nga ñun rek dangaa mayee sa doom nga ne mayee naa ko àdduna àlaxira I don't believe in that hmm. moo tax bugg naa tey lu maa wax nii ñëpp ñu jànga si hmm. because man nekk naa ko xam ne waroon naa xam suma yaay waroon naa gis suma yaay waaye taxu de suma yaay daf daan ñëw waaye daf daan ñëw si suma gannaaw comme comme dama dem school ma bala maa wàcca o oh, ma dem damaa stay story bi wàcca ay boori six bala maa am fay moto ñëw guddi dafaa jot damaa ñëw fekk bi na dañ maa wane ah sa yaay ñëwoon na fi waaye gisuloo ko daf ma daan métti jaral na ma sax bul ma wax ne sa yaay ñëw na because nga ñëw gisuloo sa yaay waaye tamit am lu ëmba loolu yëpp man xaw ma ko lu nekk si biir bi su ma yaay nekkutoon di sëy afta ak suma papa ni mhm. man suma yaay ak suma papa ñetti doom lañ am mhm. man maa nekk si digga bi am naa mag bu góor am naa raka bu jigéen. to make it am naa mag bu góor am naa raka bu jigéen man maa nekk si digga bi. yaa ngi gis waaye suma yaay time boobu noonu after nekkul di sëy ak suma papa mu ngi sëyoon si feneen. parce mm-hmm. que ñun ñu ngi nekk xaleel ñun ay ndaw lañ woon amuñ sax four five years yu mut mm-hmm. suma bi amoon na loolu noonu mm-hmm. waaye ñun amuñ woon five years yu mut yaa ngi understand noonu with that life moom mu ngi sëy feneen muy mandinari mu ngi sëy feneen waaye daf daal ñëw di seet si di ñëw di dem ok am na njaboot nag suma yaay 11 doom la am 11 dom man ñuma bokal nday ak bay ñun ñetta la way ñi ci dess yeb yaay rek lañ bokka bokkuñ bay so after 22 years bogo nonu nga doga gi sa yaay bu la mhm. fekke jeexal nga school ba pare wow sa school life bi nga pare nga sit grade 12 la defon nga mhm. collect wala demoon nga university mhm. wala defon nga lenen ak lenen yenen course Wow, Queen um, waaw def naa university study na pharmacie oh. def naa pharmacie hmm. um, ma graduate in 2012 in the University of the Gambia but still that trauma mu ngi laa toppa ba léegi da tooma mu ngi maa toppa pour ñeneen ñu jànga si mhm. sa doom loo ko maye maye maye loo ko joxe joxe joxe mhm. damaa yàlla mu xam ne kii mooy sa yaay bi ko kii mooy yaayam wala baayam especially yaayam because ëllëg sibir dina xam ne ko amee ko juru ko mhm. loolu lu munta nekk dina ko xam trauma boobu daf ma toppa stress boobu daf ma toppa ma ëmba ay naxar yu bari ay coono yu bari nekk ndaw seet teg si nekk jigéen um, coono bu nga daj noonu stress boobu noonu because I know how you feel. you know lu angale de wax he who feels it knows it. so sa yaay sa papa divorce and then nga nekk si sa loo xam ne gis loo sa yaay ba after 22 years yaa ngi dem school naxar boobu noonu nga ëmba sa biir bi fooguloo loolu moo tax nit ñi dee wa Fatou Jagne dafa tànga. waaw because of naxar boobu moo dee feeñ all the time. tey nag tàngal bu mu fi feeñ ba suñu feeñ ngeen naa def loo xam ne. ah yoo xam yoo yoo yoo yoo xam nga ne lu ñoo wax noonu. yow personnellement xam nga ne nekkut si man. wax dëgg waaw because toog nañ waxtaan nañ. wax naa ak yow you know dem nañ dem nañ into something. nga advice ma nga wax ma lu bari ma won la ne lii moo tax lii ak lii waaye bugg naa askan wi ñu xam. yow maybe xam nga waaye askan wi xamuñ. Um, lu ñoo wax Fatou Jagne dafa tàngal dafa ëmba lu bari because dama dunda di dunda di di dunda mhm. waaye um, dama nekk koo xam ne dama nekk koo xam ne dama gis ne rek um, everything you're doing in life um, ak ak lépp lu la dal rek xamal ne um, is a test in life yaa ngi understand mm-hmm. dama gëm ne yëpp test la mm-hmm. dama gëm ne yëpp yàlla moo ko yàlla moo ko dogal ba pare mm-hmm. ba pare dama see jànga dama see jànga jànga laa leen si because man xaw ma tey du ta yàlla teg ma si situation bi ok waaye xam naa ne yàlla def na ma ma ma fes def na ma nit ñu xam ma def na ma nit dañ ma dee déglu def na ma am na ñu nekk suma kanam ak suma gannaaw mm-hmm. yaa ngi understand léegi daf ma def waxkat macha allah moo tax nga ñëw fii sax waaw daf ma def waxkat boo xam ne dinaa si jàngal ñeneen because as I am telling you ma ne la dañ ma dee call everywhere di ma wax seen problème mhm. te xaw ma leen si maam Adama Awa mhm. su ma leen waxee suma problème dañ dee seen bos daf dee dañ dee giif mhm. te man foog naa yàlla daf ma teg si position boobu ma gëm ne tam loolu si jaamu yàlla la bokka waaye the aggressiveness they are saying about Fat Jagne ak ni yow xam nga yàlla xam na ñeneen ñi xamuñ te ñeneen ñooñu lu ñu xamut laa bëgg a xamal lu tax Fat Jagne ñuy wax loolu si moom am dunda naa boobu dunda naa live boobu noonu xaw ma suma yaay mu métti man xarima bugga naa xam suma yaay because I don't have that mother's love you know that mother's love ma wax la dara man according to story bi nu ma ko déggee because xaw ma ba léegi and I need noo su fekkee ñi xam ñu ngi maa seetaan nañ ma baalal ñu wax ma because dama bugg xam nekkul dama bugg xam pour yaaxa waaye dama bugg xam pour xam su suma yaay comme ñu ma wax comme according to nu ma ko xamee bu ma amee seven months la jox suma tooma you know suma raka man one year ko magee mm-hmm. yaa ngi understand waaw waaye bu ma amee seven months la ma jox man suma tooma mu yore ma mm-hmm. waaye loolu xaw ma deep into that story. Mm-hmm. xaw ma deep into story su ma léegi dama dem ba ma mag ma dem def investigation. Mm-hmm. ma gis ne ma xam suma famille yaay ma bokk si famille bu gën a rëy Gambia mun naa laa wax loolu. Mm-hmm. te ma bokk si famille bu baax tamit suma sayti yaay. suma papa ba léegi xaw ma kan mooy famille am suma papa xaw ma papaam xaw ma yaay am te bu maa dem pour mag pour di investigate fekk suma papa dee na bu maa door di dafa doon door di ma waxal waaw fekk am na beneen jabar mm. waaye jabaram boobu tamit lu yàlla xam doy na doo toog di yaxa doomi aadama ma ko dee def mm, lu yàlla xam doy na te toon man su ma xaw ma nag su ma paa ñemeñu toon kooku xaw ma mm. yal na yàlla seedal suuf si ko am yàlla seedal yi mm-hmm. xaw ma ñemeñu ko woon xaw ma waaye bu ma demee bay mag maa ngi door liggéey si lopitaan bi lopitaan yi Banjul liggéey naa fa foofu laa doon liggéey yow foofu sa laa bëgg a ñuy ñëw waaw bëgg nit ñi xam ne comme Fatou Jagne si boppam dafa am carrière Mm-hmm. Fatou Diagne dafa am vision. Fatou Diagne dafa am aim. Fatou Diagne du nit ñi luñ dee gis si Fatou Diagne non Fatou Diagne mbiram is beyond that dem nga school wàcca nga dem nga university def nga pharmacie te yow léegi eh, yaa ngi liggéey di am sa xaalis sa liggéey boobu laa bëgg a sax ñu génn si waxtaan ndax programme bi dafa taxaw pour ñu taxawal ñu ñu ñu ñee xaw ma naka lañ ko de waxatee sax we inspire to inspire ak uh, kids yi xale xam ne ñu ngay doog a jóg ñu xam ne dara xëy rek sooti mm-hmm. I've been saying this last week maa ngi fi am benn lawyer mhm. so ñu ngi doon waxtaan si lu mel ni dara xëyut rek sooti nit koo mënti gis nga taxaw di ko ñëwee dafa am hidden story bu nekk behind the cameras mhm. so nit ki doo ko dee gis rek nga jooj ko so Fah Diagne dama bugga a nit ñi xam ne yow danga nga di liggéey loo xam te nekkul sa ak xeex ah, ak doomi doomu ba nañ ñëw si side boobu mhm. ba nit ñëw sa liggéey sa pharmacie liggéey bi xaw loolu naka la ñëwee lan moo tax nga choose pour nekk nit ko xam dafa si affaire science ok euh, queen man dama dama yaga di bugga di dimbele doomi -hmm. ok wow with with that story um be ma la nekon nekkoon birkama fofu foofu suma bena broda mm mm-hmm. broda mu gesse si observer bi ñu ngi def um, ñu ngi binda um, ne dañ bugg dañ soxla ay science student pour ñu mëna a def discourse and discourse and discourse mm-hmm. ma gisee observer bi ma ma ma ma follow up everything mm-hmm. ma end up dem jëndi form bi fill form bi def yu ma def um, it was more than almost thousand plus plus like ñu ñëwoon pour apply mm-hmm. waaye yàlla def ma bokk si almost fanaa twenty something rek lañ jëloon si ñuy sa ñuy def pharmacie ma bokkoon si group boobu noonu mm-hmm. yàlla def ma bokk si groupe boobu mm-hmm. with all that stress moo tax it maay bugg a ñëw foofu dip with all that stress waaye style yàlla mu ma jàppale ma mun a dem handul loolu ba def course bi pare course bi door de liggéey si lopitaan bi te lu ma la moo lu ma lay wax mooy gis nga man dama nekk nit koo xam ne lépp lu ma dee dugga dama si dee dem ba jeex yow xam nga loolu mm, si bu ma nekkee si université bi su ma wàccee school damaa dem si pharmacie bi dem jàppale ku nekk si pharmacie bi mm. dama koo dem jàppale ñëpp ñibbi am ñun ñetta ñoo doon ànda si suñ classe because after jigéen ñi nine lañ woon ñetta ñetta ñetta ñoo daan ànda mm-hmm. góor yi tamit foog naa ten mm-hmm. I waa ten also waaye um, suma xarit dañ ma daan wax ne man dama tooy lu tax man may toog di liggéey si pharmacie bi waaye ndekete lu ma doon def loolu suñ boos bi daf daan bàyyi xel dañ pare rek ñëpp a waroon a dem postin dañ doon laajte kan ngeen bugga pour mu des fii nii sa kan yu imagine pharmacie bi yëpp yëpp suma tur lañ binda duñ private meeting pour ku nekk binda si kayit kan nga bugga man lañ binda ñu ne man maa war a toog baañul waaye man dama xam ko baa Banjul ba pare mhm. léegi bu ñu demee ba def yooyu yëpp afta ñu ooma ma ne leen ne déedéet man bugguma dama bugg a dem si ob bi mhm. ñu ne ma yow yaa dof yow nga xam ne fii salary bi moo ëpp foofu ma ne leen waaw mhm. bi ko xooluma woon salary man I always want to help the laa demee si um, noonu laa demee Brikama afta ma jógee Brikama afta ma dem liggéey Bouyaam because dama bugg a gën a pour gis because xaw ma dëkk yooyu noonu ma dem ma dem di liggéey bu Bouyaam noonu laa liggéeyee bu Bouyaam bi am na some time boo xam ne you know suñ salary yi du ma daan receive salary ba pare kan you imagine after Um, yaa ngi liggéey as a health worker you receive less than two thousand dollars. subhanallah mu métti yaa ngi dem ba si biyaam. waaw waaw less than sa lekka a dee nga am nga jos xam sa yaay nga gis sa yaay yaa ngi am ay rakk yu toppa si suuf nga bugg a leen a jàppale nga gis seen condition nga bugg a leen a jàppale yow xamuloo lan ngay def sa famille yëpp ak ñi la ñi woon ak everything ñëpp xam nañ ne yaa ngi liggéey pharmacie mhm. yaa ngi liggéey as a health worker ñu bugg comme ñëpp rek la teg bët boobu noonu léegi yow naka ngaa def with that two thousand dollars yi mu mu metti ak man ma def lu nekk dem ministère yi dem ñëw dem ñëw dara lii nag moo ma puus ba ma génn Gambia war a dem si dëkki naar yi wax dëgg puusal foofu soo yéen a ngee gis ne all the time dañ nekk di wax we should stop this back way you know no to back way and stuff ñuy dem baag wee ñoo gën a xam ne yoon bi muy jël. dafa risque ñoo gën a xam ne xarula la. defe waaye lu tax ñuy dem mooy stress bu kii di wax ni naka la nit yaayam di ko jàngale def si moom loolu ak loolu bem dem ba màgg mu war a dem liggéey ngeen di ko fay ay 2000 ay 2005 less than loolu noonu yow kooku mu war a fay si paas war a defar parents mi lii moo dee pousse xale yi ñuy dem back way so corruption bi dafa war a daga ñëpp li nga xam ne ñuy jël public money si taxpayers seen xaalis di ko pasar pasare dafa war a daga it should come back to us su fekkee ne ñu ñu ne ooyee the future leaders it it should come back to us su nekkul loolu rek we will choose this at the end sa the day sax da ngaa déggee dañ koo stop dañ koo stop dañ koo stop te duñ si def dara. defuñ benn effort duñ si def benn alal. non dafa métti dafa métti alal bi moo tax nit ñi di dem soo leen ah, lan moo tax nga jël yoon boobu noonu yaa ngi wax ne xaalis bu la dee fay te ngi sa yaay yaa ngi war a sa rakk yi soo loolu moo la puus nga dem. waaw loolu bokk na si lu ma puus moo nekk di main thing sa lu ma ginnaaw puus pour dimbale suma ñi ma bàyyi si gannaaw moo xam suma famille bi suma yaay ak ñi nga xam ne rek. teraanga dox na si ñun ba pare mun naa leen a dimbale gannaaw yàlla. waa tamit stress bii nii tamit with the stress of. sa yaa xamuloo sa yaay yu yaa adopted waxuñ la lu xew xamuloo lu xew yaa ngi nekk xalel ak yooyu noonu yu noo sa papa gaañu naa you don't know the family of your dad ku nekk mu ngi wane waaw comme léegi nii léegi nii people are telling me sa papa diw moo ko jur sa papa nii sa papa waaw ñun suñ famille dama di am call ba international I swear to God Mm-hmm. because léegi yaa ngi nekk dara ku nekk. Fatou Jagne xam nañ mm-hmm. ko wallahi mm-hmm. waaye some people when I tell them one word one word they don't come back. they don't come back waaye ñun xamuñ ne ñun xamuñ ne sa papa nekk te yow am na doom bu mel ni yow sax ma ne leen ñetta la am ñu ma bokkal ndey ak baay. you know it's really sad. the the life we're living in. I am not telling like I am not saying this because wax nañ ma bul wax sa story soo waxee sa story they will use it against you man yàlla daf ma def lii teg ma si lii pour ma def lii. jàngal si ñeneen I will tell my story moo tax ma ne la dinaa jox lu ma joxut kenn I will tell my story to for to learn from it mm-hmm. pour ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi koo dunda ñu free seen mind mel ni man mm-hmm. because man tey waroon naa nekk kenn dama dee dem ba def naka sulut noonu xaru ak yooyu waaye jarut ko fa subhanallah you know jarut ko waaye moo tax maa ngi def lii moo tax bëgguma ñu ndoba ko digga la issaat waaye buñ ko denca nañ koo wax pour ñeneen ñu jànga si mm-hmm. life bi laa nekk di go through life bi laa nekk di dox you know waaye leena laa bugga xam dama bugga xam suma père suma family daat dama bugg xam affaire bi naka la ak da story because suma daat bu mu gaañoo kan yu imagine am na ku jogee ba Guinée Bissau mm-hmm. ñëw mu ne magam la ñoo bokka ndey mu ne ma magam la waaye nduróo nañ mhm. nduróo nañ waaye I can't say anything mhm. suma suma papa alelam gisuma si dara mhm. du ma ko xëccoo te du ma ko musa xëccoo jabaram is a problem to us du ma ko xëccoo du ma ko musa xëccoo waaye léegi xoolal kooku gaañu na dañoo gisante si société bi daf maa oo bugg ma defal dara am nga yooyu noonu su ma raka moo nekk koo xam ne moom tamit daf dee mun a bañ moom moo doon xëccoo ma ne ko man du ma xëccoo yaa ngi understand waaye with that life lii moom ma dem si dëkki naar yi te dis dëkki naar yi tamit ma foofu noonu because ki ma yoobu moom tamit is a family friend can you imagine si ñi ma ki ma yore woon. Mm-hmm. am su ma su ma cousin xaritam la. te bu mu la doon yónnee xam bu mu la doon yóbbu xamoon na lii. human trafficking moom ma man kenn sax dafa yóbbu ay nit ba pare daf ñu wax ne sax soo leen demee bu leen wax ñooñu ne dangeen ma fay xaalis. seriously waaw because ñooñu. waa ñooñu tamit dañ leen fay dañ daanaka ñooñu dañ leen dañ ñu jinda ñun dañ ñu jinda si moom. aji faatu jooj la tudda. jëkkëram tudda docteur Ngom. aji faatu jooj man moo a jaay génnee ma Gambia yóbbu ma waaye waxut ma def fak li fa nekka because euh, Dubai la ma waxoon kan mm-hmm. you imagine Dubai la ma waxoon ma dégg wax bi dégg wax bi ma dama dee mun a laajte comme journaliste yaa ngi understand di laajte di laajte waaye nit ñu ngi maa he yow dëkk yooyu nga xam ne ñu ne dañ dee tiddoo xale jigéen ñi dëkk yooyu nga xam ne ñu ne dañ dee def lii dañ dee reyee dañ dee def nii gis nga force de ma ñëw ko mu change face rek woo soo agressif waaye ma xam ne kii ma fiil ne kii du ma def loolu ñun Gambien dañ dee toros nit Sénégambien bi kay laay wax dañ dee toros nit ba uppa because soo amee relationship ak moom rek mm-hmm. da ngaa waaw kii du la def loolu mm-hmm, with the face mm-hmm. mu ne ma xam nga ne man du la def loolu su fekkee ne nii ak nii bugguloo rek nii fekk man tam gisuma woon dara du dem because of the life I am living here with all the stress and the trauma kat di dañ dee wax ne we are useless ñun wootuwuñ mënuñoo def lii ñu ngi toog di def lii fekk dañ amut luñ bugg fii nii suñ ko amee xale ndawi Gambie dañ am jom de xoolal bi TikTok génnee ñëpp am nañ aabi TikTok <laughs> ñëpp employé nañ leen te te binduñ application non am telling you te TikTok fayut kenn Gambia lii moo tax ma laa wax mm. yaa ngi understand there are stuff yoo xam ne ñun Gambia dañ ko war xoolaat as young people because we count we count a big role in this society and the development ñun dañ bari macha allah dañ ñu war a jàppale lillahi wa rasul xam nga man soo gisee man dama dee génn ma wax de fact wax de truth mhm. dama dee bëgg lu nekk mu jaar si yoon fu mu nekk ñëpp ñu ngi foog ne Fatou Jagne mu ngi am looloo loolu mhm. Fatou Jagne mu ngi def looloo loolu fekk Fatou Jagne struggle dëgg la as I am talking to you right now mhm. maa ngi si benn investigation boo xam ne. waaw dinañ ñëw si boobu sax. waaw ma ma ma góor dëpp suma travelling. bu ma àggee da gis nga am jànxa bi yóbbu ma. Mhm. jànxa bi yóbbu ñu ñu génn a dëkk bi ñun ñetta la woon. Mhm. ñun ñetta la génnee Gambia fii mhm. waaye fekk yóbbu woon na ñeneen. ak jëkkëram balaa ñun because ku an su moo doon yobu ñeneen ñoo doon def link di yóbbu wante di yóbbu wante waaye su ma la waxee xale jigéen ñi lu ñoo daj si dikki naar yi ñeneen ñi jaral na leen ñu toog foofu noonu di cagatu di def lu bon dan ñu dellu si Gambia because dañ dee wane su ñëwee lu ñu fee am foofu noonu ñu ngi koo def ñu leen di fay ñu ngi koo teralee seen waajur yi ayewuma leen waxuma ne waxuma ne lu ñoo def nii ak nii wa nekkul lu rafet mm-hmm. te ñoom soo leen laajee deep inside dem nekkul lu gën si ñoom mm-hmm. waaye because of amuñ ko si seen dëkk waxuma Gambia rek de waaye Africa in general young people of Africa are really suffering in this Arabic world because man dama gis ma ma dem ma taxaw gis naa kuñ dóor jam ko kuñ jam mu dee ñu dóor ko gis naa kuñ traumatise ba mu dem dof gis naa koo xam ne dafaa dundal ay animal gis naa koo xam ne dañ ko poison bés bu mu waroon a ñibbi mu dee si airport yi euh, si biir flight bi balaa moo àgg Éthiopia kooku Éthiopienne la gis naa Ghanaian buñ traumatise ba mu dof gis naa Gambian buñ dóor ba mu dee indi nañ fi dead body ñu ne dañ ko ñu ne ñu ne dafa dafa dafa dafa jomp mu daanu xaru xaruwut boo sax moo ko dóor xan ko ñeneen ñi dañ ko puus oh. kooku noonu maa ngi folo kii sam ba saa si tey maa ngi koo folo am na ñoo xam ne ñu ngi ma see dimbale waaye dara génnu si ba léegi. si is really sad ma wax la dara ñun dañ dem wàcce si dëkki naar yi is a transit lu sori la gis na Sénégal bu ñu fa demee. Mm-hmm. Sénégal seen sécurité ñu mun a liggéey ñu ngi noonu. Mm-hmm. dañ fa dem dañ ñu am pour delloo si ñu ñu ne duñ dem bés boobu ñun jëluñ flight waaye am nañ beneen agent bu nekk Sénégal foofu. Mm-hmm. beneen agent bu nekk Sénégal foofu and that agent. moo defaraat moom ak aji faatu jooj Gambia fii ak jëkkëram ñoo doon def this transaction dañ am pour defaraat am luñ dugalante si biir airport bi foofu di mm. next time ñun ñu mun a dem noonu lañ demee waaye is a long journey mm. dangaa step si dëkki naar yi waxuma la Kuwait rek de dëkki naar yi yëpp noonu lañ mel moo tax it any time ma gis ne the Gambia government or oh, Gambia ñu ngi am lu ñoo deal with the Arabic people mm. du dee trust waaye dama leen dee wax ñu jël seen time because they need ñun xam nañ we know. so yow um, how many months nga am foofu wala how many years. ok am naa fa one year some months. waaye mënuma laa wax exactly because of the too much trauma lu ma fa am waaye gis nga soo egsee si ay airport bi foofu foofu nga dee xamee ne da nga ñëw pour torox. billahi so foofu sa passeport yëpp la ñoo jël ñëpp ñun dëkk buñ dem dëkk african buñ stop collect nañ fa ay young people te jubba si bari jigéen lañ daanaka ñëpp jigéen lañ ñëpp jigéen lañ ay ndaw collect nañ leen fa gis nga buñ demee ba cib ne si airport bi. nangu suñ passeport dañu dugal si néeg bu ndaw fii moo ko uppa lu ndaw a ndaw with hundred hundred plus ñu ngi si biir néeg boobu du dañu puus dañu yuuxu more than twelve hours du lekka du naan du dara ah. ñu ngi si biir néeg boobu noonu di wax agressif li si ñun dégguñ laaka bi waaye am na nit nu moo waxee dangaa xam ne kii wax waxu bu rafet yaa ngi woon na sax noonu lañ fa nekkee for twelve hours or more lekkuñ naanuñ ñu am agent bu ñu ñëw jël si dañoo oote tur di yóbbu di oote tur di nekk te office lañ ñoo yóbbu boo xam ne dañoo jaay nit boos ku bugg a minaan dafaa ñëw joxe xaalis sign ñu yóbbu la dañ ne dee laal nii sax di laaj xool ndax sa yàppa yi baax na kan yu imagine léegi <laughs> kii ñaata la lañ dee wax kii ñaata la léegi num tudda ah, buñ diree jaama am sorry so am Fadiane yow naka nga def ba nga rëcca si loolu noonu nga ñib si connection bi ndax da amee woon téléphone dañ leen deet bàyyi am téléphone da nga daan communicate ak sa nit ñi naka nga def ba rëcca nañu hmm. Gambie téléphone doo ko am doo wax ak téléphone yow dangaa bëgg di liggéey 24 hours bu amut res te any single mistake boo def toj ka as sa toj ko famille bi yëpp mun nañ laa dóor ba rey la te dara du si génn des arabic countries ñu la dee wax mooy man yóbbu nañ ma si police bi. anga police bi lu ma wax. Hmm. fekk naa fa ñeneen ñu yóbbu gannaaw comptoir dañ la dee wax ne the citizen is always right here. yaa leen tooñ ñoo la tooñ they are always right. te Gambie mooy dëkk boo xam ne ndeysaan nag gars yi dañoo ñëw fii def lu leen ne te kenn du si wax soo fàggee because ñu ne dañ am xaalis waaye xaalis boobu am xaalis boobu lañ war a tegee side you need to value your people soo gisee ma dee xeexee maay xeex si aha ak yele fi doomi adama dama am si lu ma jaar ma am si lu ma gis ma gis ne yeneen dëkk yi ñu ngee value seen nit ñi then who like who are we te ñun mënuñoo value ñun luñ am waxuma la ne bul toppa human right kenn du ñëw dëkk bi jógee am ñëw nga koo ngay abuse right am waaye tamit bul jël sa right doomi sa doomi réew mm-hmm. mu kële upper right am dan sa doomi réew african bi dafa a change loolu bu baax mm-hmm. because li nekk na loo xam ne dañ si war a taxaw ñun suñ valé wut suñ boppa kenn duñu mus a valé si àdduna te africain bi lu ma gis si moom dafa valé wut boppam bés bu ñoo valé wut suñ boppa bés boobu la ñu àdduna yëpp di xam kan mooy africain bi mbokk yi ba ah, pare mhm. ba pare lu ma bëgg a yokk si wax bi mooy xam nga ñu la dee wax mm. ñun duñ dee soona ñun duñ dee soona because ñun der bu ñun lañ am ñun dañ xalaku moo tax ñun duñ dee soona ñun dañoo continuer mun nañoo di liggéey rek without no stop so yéen bu ngeen doon ñëw yéen ñaata a ñëw yéen a dellu si Gambia Euh, man bu maa ñëw. waaw because man si prison bi laa jaar ñëwaguñ si prison bi dama jaar prison bala maa ñëw. Oh, ok mën nga ñu koo somaraysal bu nga nekkee woon sa prison bi ba nga ñëw bi xees wax waaw with the struggle mm. with the struggle in Kuwait noonu noonu noonu ñi dañ gis naa ñoo xam ne dañ leen di réeb man attempt nañ pour réeb ma fa some time mm. so many times mm. attempt nañ pour réeb ba te ay ñoo xam ne waa dëkk bi te am am am place ci dëkk bi ñooy def yooyu noonu africain yi la ñoo dajare yóbbu leen benn nit leen di dimbale di leen réeb man atem na ñaata yoon waaye xam nga man rek mhm. ak suma dëgër takar ak suma suma bari manière bari manière is very good sometimes dëgër boppa tami daf dee baax si yeena situation yoo dee nekka mhm. because soo ko defutee rek gis nga naar bi mhm. ku dëgër boppa rek la ragal ku dëgër boppa leena la mun si yow rey la wala sàkkal la pexe waaye man nekkoon naa koo xam ne lu nekk dama si dee jiital yàlla nag ba pare di doog a demee lu leneen dëgëroon na boppa nag noonu laa demee noonu laa struggle boobu noonu am waaye di di di di di gërëm am Salvation Army ñoo tax tey ma egg si Gambia waaye trou ñoom laa jaaree noonu afta ñu maa dimbale suma kayiti suñ kayiti mënutoon a pare ñu ne Gambia amul fly duñ mun a lii foog ñu jaar si jéel bi noonu la ñu yóbboo si jéel bi waaye buñ ñu yóbboo si jéel bi hee jéel bi lu fa nekk africain yi sa jàppuñ leen fa nit lu bon lu nekka lu yàqu ñu ne ñun la te ñun ñooy defar foofu noonu dama dem ma change foofu suma activisme foofu la dooree. loolu moom foofu nga commencé di xeex ak yelleef waaw because lu ma gis foofu noonu ma gis ne ñii respecté ñu africain yi faale ñun suñu nekk si gannaaw la nekkoon néeg bu na bon lañ doon jox africain si ñun ñëpp ñoo nekk foofu la different nationality waaye africain lañ foofu laa dooree suma changes bi dama da dama change foofu ba nga xam ne police yi biir biir biir biir kaso bi police yu fa nekk man dañ ma respecté woon because dama leen dee wax digga ok léegi euh, bu nga ñëwee si buñ leen buñ leen dellusee ngeen ñëw Gambia si mhm. nga delluwaat si sa liggéey pharmacie bi. waaw am dellusiwaat bi ñëw Gambia métti woon na because dellusiwaat bi ñëw Gambia dañu dañoo dem ñu ne ñu am nañ flight am nañ am nañ flight pour dem ñu dem ba si airport bi ñu delloosi. ko def nañ ko am in 2017 I think. waaw dem nañ si airport bi ñu delloosi ñu. dem nañ si airport bi ñu ñoo delloosi du ñu yóbbu du ñu dellu du ñu am na benn yoon nag ma ne leen ne buñ ñu yóbbu ma ne leen du ma dellu man flight bi rek Gambia. <laughs> hee waaye dafa tàngoon de Aïssa moo la mun a wax loolu ay sa Danséré mm-hmm. dama bañ man ma ne leen du ma delluwaat ci kaso boobu noonu damaa ñibbi Gambia because ñii luñ bëggoon dañ doon ut tic-tac pour rey ñu waaye su am nga su la yàlla pare su yàlla parewu pour ñu rey la rey duñ la ko mun a def mm-hmm. because ñu man maa ngi taxaw di gis ñuy xang ay jigéen tu det si biir kaso bi si investigation bi nga nekk right now. Hmm. yéen a ngi doog a discover some of or few people yi nga xamante ne ni allegedly ñoom ñoo leen ah, ñoo doon jaay nit ñi fii di leen yóbbu foofu noonu so am not saying that's the fact I said allegedly. Hmm. so um, ñu ñëw si loolu yéen a si xuus ndanka ndanka waaye jotagu leen dara di nga xam ne moo fees seen bët si jamono bi. waaw am ku dama bëgg a Gambia xam ne. Mm-hmm. Gambia dafa gudd dara on human trafficking. dafa gudd dara de. Gambia dafa gudd two stats on human trafficking. Gambia dafa war a def dara on human trafficking. te ba léegi mu ngi te Gambia su buggee def of uh, anything on human trafficking needs to involve us people like us. yéen mi nga xam ne yéen a ñoo ko dunda ñoo ko gis. waaye um, affaire bi nu mu nekkee nekk lu rafet man dama leen mujjee wax ne yuus leen ma because amul fu ma dugul bu ma ñëwee Gambia pour ñu jàpp si wokk on li maa ngi gis xale yi di dem te gis naa luñ faa dunda ñaata nit lañ fa rey. rey nañ luñ fa rey si Gambian munuñ ñoo munuñ ko munuñ seen famille ñoo mun a wax te famille yooyu duñ génn a wax duñ mus a génn a wax xale yi jigéen ñi sax dañoo ñëw pour ñu wax seen story is a problem because the society how the society takes them how the people you think ne they will protect you how they do police si boppam am na ñoo xam ne dañ laa wax ne du yaa fa demoon daf la nee nii ak nii waaw police Gambie la wax lii am na ñu koo wax ñi nga xam ne ñoo la war a protect nekk si biir nguur gi war laa protect protectuñ la lii nekkul politique nekkul pour agence dama bëgg a man Fatou jaañ maa ngi ko wax Gambie yëpp dégg ma nañ ma yuus ma jàppale leen si liggéey bi recently jàppa nañ ay nit te man maa ko maa leen demal investigation boobu with the government fayuñ ma dara crédit jëndaluñ ma ko joxuñ ma dara waaye dama ko def willingly because dama bëgg a ñu work on it maa ngi attend ay international meetings later maa ngi nii suma baat dama war a dem ba ba Morocco dem attend event boobu with UN mm-hmm. on human trafficking migration mm-hmm. pour am funding sax is a problem pour dem atteindre loolu loo xam Gambia dañ see kontaan pour ñu gis Gambia si benen level work on migration and human trafficking. like have you like have you I don't even know how to put this. reach out. I mean, make communications with those those who are responsible for such because ah. me it's something loo xamante it has to stop. ñoom ñoo dee wax ne no to bagwe and stuff so soo we willingly pour nga ah, def loolu nonu for your country I think they should they should be willing to help you. Um, Queen. dëkk bi mhm. dëkk bi ñun ñoo war a jàppale nguur gi ñun ñoo war a jàppale président bi pour ñu mun a liggéey ñun ñëpp waaye ku ma ma wax la dara mhm. from président Adama Barrow mhm. ba si suuf xam na kuy Fatou jaañ xam na liggéeyi Fatou Jagne xam na Fatou jaañ lu moo def président Adama Barrow du ma wax ne bëggut a def liggéey bi de waaye ñi nekk foofu ñu jox ko place ñu ñoo leen place pour ñu liggéey ko man ñoo ñu laay bileem because any step boo bugg a jël am na noo xam ne soo ko defee da ngaa dem this year dañu wax ne victim victims voice lead si maaj bi mhm. maaj boobu gis nga su ma su ma nataali ah, maaj bi on dat dee man ak yow tasee nañ ma paree si maaj bi dama paree si maaj bi ñëw fekk ñëw ñëw ñun ñëpp ñu tasee ñu tasee yow gis nga man lañ jiital mhm. man lañ jiital lan lañ ma si fay lan lañ ma defar waaye dama koo def pour Gambia dama koo def pour Afrique def ko pour Sénégambia mm-hmm. lii moo tax man ma jiitu mm-hmm. bu bi ma nekkee foofu ma àggee lañ ma ne Fatou Jagne dañ bëgg nga jiite mm-hmm. waaye suñ bëggoon ma jiite waroon nañ ma koo wax bu yàgga waaye waxuñ ma ko waaye xoolu ma si naxar xoolu ma si mer Gambia dañ war a door dafa jot lépp luñ mun a def dëgg la mun nañ fee teralee suñ boppam mun nañ fee dundoo mun nañ fee defee lu bari waaye suñu jàppalewut ñun mi nga xam ne mun nañ koo def ñun ñu see xee ñu gis ay ennemi affaire bi du wok affaire bi du wok mbokk yi bu fekke ne yéen a doga setan a seetaan setan Fatou Network ah, suñu programme bi ah, jata balu tey nak programme bi jaxna lol ma sha allah taala way waxtu bi mu ñe xoj instant bi waxtu bi mu ñe xoj di ñu def yoy ak yoy ah, fa Diagne bala ñu waktu bàyyi nga dem rek parce que waxtu bi daf ñu jëm fa ñu ñu ñu tout rek si jigen yi nga xam te nga nekk di jappalé ñi xam ne seen jëkkeer yi ngi leen di seen jëkkeer yi ngi leen di matri di def lo yeneen ak yeneen yo xam ne is not done te yo yaang xar sa tànki tubéy parce que amoon na benn lawyer bu ma fi amoon moom tam mu siy wax te euh, mhm. noonu suma waay la moom tamit mhm. lu ma am lu ma jaaxle rek dama dee mun a reach out moom waxtaan ak moom you know mu mu xelal ma ay xel mhm. um, before may sori su loolu ma dooree ko sax si jànxa yu mujjee ñëw nii ñu mujjee jógee Libanon ñu jàppale leen ñu ñëpp si ñu ñëw Gambia alhamdulilahi rabbil alamin work with maa doon liggéey ak ñoom bu baax a baax ba nga xam ne ñoom daanaka 98 pour cent bi yëpp jot nañ seen réintégration boo xam ne ñu ngi leen ko supporté mhm. ah, mhm. pour turu ñun ñu mun a def leneen mhm. ñooñu noonu seen boppa di à traumatise xale yi jigéen yu ñoo dóor ñii yëpp dañoo reach out to man because man maa ngi social media yooyu yaa ngi social keneen ak keneen gis nañ lu ñoo def te ñu ngi ko spread di sensitize the people di raise awareness noonu la nit di reach out to ñun di ñu wax ne ah man problème lii bii laa am problème bii laa am su ma xamee ne am naa si lu ma si xam waaye xam naa ne queen am na leneen lu mu si xam dama dee try ma reach out to queen yow queen nga reach out to musu musu moom tamit mu seet naka la moo def noonu lañ ko dee defee rek pour ñu mun a jàppale wante waaye ñu ngee def lépp luñ mun but the support dañ ko need from the Gambia from the Gambia government from suñ nit ñi waaye force ñun suñ boppa ñu acceptante waaye trauma trauma bi si famille bi si biir kër gi la dee jógee ba pare balaa mu dee génn you know ma ba pare di di use opportunity boobu noonu di wax ne nañ ma jàppale lillahi wa rasul ngir yàlla ak yónnente bi comme que mënumaa dem Morocco Sénégal bii laa war a dem te next week laa war a dem mm-hmm. su ma su ma amut fondin bi man du ma mun a dem Sénégal damaa toog Gambie ma def lu ma mun laptop sa aw ko waxuma ko pour dara pour def suma liggéey responsible pour affaire migration. National Agency Against Trafficking in Person NATIP. have you reached out to them. man maa ànd ak ñoom barki démb si investigation bi man maa leen yóbbu. so is it ne gars amuñ xaalis bi pour jàppale la. waaw they not willing to. soo waxee dañ la dee wax ne ñoom amuñ xaalis waaye soo amul xaalis why not reach out to the government because human trafficking xaalis mu ngi fa pour ñu liggéey work on human trafficking ku la wax ne migration and human trafficking amul xaalis waxu la digga because Gambia fii xam naa ne am nañ xaalis pour work on loolu waaye tax te yow nga bëgg a use the victim pour mu dimbale la sa liggéey bi te yow bëgguloo jàppale victime bi Queen dinaa waxaat fii nii dara loo xam ne wallahi mais bi xam nga ko mais bi xamuloo ko Queen man dama toxu toxu bu ees pour protection ma boppa Queen dama ko wax ku ma mun a jàppale bañu ma si man ma wax ko ma wax suma lu ma bëggaat àdduna yëpp dégg ma ñu jàppale ma dan ma reach out to personnel nit ma personnel ma reach out to nit because xam nga lu xew man dama am kersa torop dama toxu aw ma télé toogu awma ko yëpp bi ko soog pour jàppale do am xaalis ba war a dem jënd loolu problème nit ñëw ma dem toppatoo loolu si lan koo xam ne xaw ma ko si maam Adama Awa waaye nag ñun ñu jàppale ñu ñun mi nga xam ne sonna nañ si yooyu di def loolu Queen su ma fi jógee beneen investigation laa nekk di def te yow xam nga loolu wax naa la ko boobu ba léegi yaa ngee dégg ñu maa kool Gambia nañ ñu jàppale lillahi wa rasul ku gis Fatou Jagne nga ne ah Fatou Jagne jox nañ ko lii am na lii man kenn joxuma dara supportu ma nit pour am dara si moom damaa support pour Gambia dem because dañ bëgg a gis the Gambia we want definitely am na solo mbokk yi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax seen euh, seetaan bu sell bi ak bu rafet bi ngeen di def saa yu nekk li nga xam te mooy Fatou Network nee naa leen ndaw bi fu mu ti nekk si réew mi àdduna wërngal këpp te nga nekk Gambien euh, dinañ def suñ kéemtalaay kàttan pour andi la fii fii nag pour nga toog fii melul ni danga war a dawal ay moto am ay kër wala ak déedéet lu ndaw loo manti defal suñu réew bi man mii appreciate naa ko parce que I know how it feels to be out there doing something for your country so yow lii ngay you have to be big you have to no no kii she went through a whole lot comme nu mu ko expliqué fii lu dem si wàllum tukki dem si beneen réew and all mu nekk koo xam ne ko survive mu ñëw ba pare di sensibiliser ni ñi pour bu ñu dugga si lu mel noonu I think that's a great job lu mu nekk def si réew mi ba pare tamit muy jàppale xale jigéen ñi jàppale man xam naa Fatou Diagne damay toog ak moom di waxtaan am so man xam naa kii ban façon nit la ak tamit éemam fa la nekk si réew mi pour jàppale ndaw ñi kii ku baax la macha allah taala ah, Fat Diagne nag ñu sant la bu baax. Mhm. gërëm la sa teewaay. Mhm. balaa ñu lay bàyyi rek ngay tàggatoo am na loo xam ne di ko bëgg a wax ah, ah leen na xari si si si sa liggéey mi nga bëgg ñu jàppale la si ko wax nga si tuuti. Mhm. ak tamit lan ngay ah, advice youths yi xale yi nga xam te ñu ngi dog jóg si suuf pour ñu mun a jàppandil si dara si si si si kanam si future bi. waaw am Queen dama bëgg rek tënka waaye du ma si wax lu sori sax. Mhm. pour wax leen rek lu ma fi wax about my story. Mhm. suma personal life loolu tuuti rek laa si wax. Mhm. loolu waaye di wax ni rek am naa good relationship with my mom. ok alhamdulillah this year was my first year bu ma ko musa jëndal xar. macha allah jox ko mu kontaan ba bugg a dee. ñun nit rek lañ mun a nekka mm-hmm. you know te ku ku ya am ku am yaay rek am nga bàyyi waaw man nag jégal naa ko si lu munta nekka mm-hmm. te man tamit jégalu naa ko waaye damaa wax lii comme lu ma la wax pour jàngale mm-hmm. waxuma ko pour amee dara suma xool moo tax képp ku ame dara sa xool am diggante yow ak sa parents trial sa level best because tey bugga naa xam kan mooy suma family baay te xaw ma leen te dem na dama dooroon pour xam mu ma doon waxal tuuti tuuti maa ngi nekk ndaw pour investiguer waaye mënumaa sori si mm-hmm. affaire bi mm-hmm. léegi foofu noonu di leen wax ne rek am naa ak ñoom ñëpp jaama ak suma whole family mm-hmm. waaye di wax tamit young people of this country nañ jàpp bu baax buñ bàyyi nañ jàpp bu baax buñ bàyyi ak lu ñu leen di wax yëpp nañ téye fuñ téye nañ try am jom def léppa luñ mun te yooni ndox bi ak yooni suuf bii ni di dem nekkut yoon boo xam ne yoon bu baax la everyone have a right to travel mm-hmm. mun ngaa tukki foo mun a dem mm-hmm. waaye demalee si dem boo xam ne dem bu leer ak dem bu set mm-hmm. waaye si kaw loolu tamit ne suñ munee jàppale young people yi ñu mun a am lu ñoo def am si lu ñoo taxaw am si lu ñoo tege young people yi dinañ def lu bari te duñ génn a Gambia bii nii because Gambia xëy Gambia dafa neex de Gambia dafa neex dëkk bu neex a nekk nii te dëkk bu am barke am te teg si dëkk bu am ñaan waaye tamit comme li nga wax rek corruption bi fekk génnu fi waaye si ñun la war a dooree nag ñun si biir kër gi soo gisee korop am si government bi am si keneen ak keneen ñun nañ xoolaat suñ boppa bu baax ñun nañ setal suñ boppa ñu mun a puus loolu mu dem because leena lañ bugga dañ bugg a gis the Gambia we want loolu lañ bugg a queen dañ bugg a gis the Gambia we want dañ bugg a dem as young people dañ bugg a gis the Africa we want kon young people of Africa ñoo war a taxaw takk seen ndiga ah enu seen loxo enu lépp ñu mun a enu léegi nañ ko nañ meeg soo ñu antan ko ñu mun a tray ñun ñëpp ñu def dara wax dëgg macha allah kontaan naa si yow lan nga am pour wax wafaatu netoo xam nga ñun cin gi ñoo ko amee bàkku bi ñoo koy yëngal nu ñu neexee nag te fu ñu génnee neex nit ñi loo loo looy wax faatu network di wax faatu network rek ne ko jërëjëf mm-hmm. waaye faatu network maa ngi ñëw toog fii si media bi yëpp di ñaan télé ak toogu suma néeg MC néeg la am dama tuhu tuhu bu es ñaan na len ngir yalla xam na ñëw fi jaar fii non si di ko si Fatou Camara biko gis naa ko muy dimbalé ay young people te Fatou jambar la wax Fatou ma ngi la wax ne ah am na relationship buñ ha ñun boka lañ sa dom suma raka la ngi la ñaan ah Fatou yow na jaaree ci yow ak ku munta jaaree may len ma télé ak togu suma bir neek ah ma ngi dika boori paradise waaye ken du xam suma kër dañu xam suma kër <laughs> defal leen ma loolu xam naa suma ma fi jaaree suma affaire dina sotti def leen ma loolu. ñu may nañ ma télé kër gi la ah. maison fii may Fatou Network. defal leen ma loolu. fii de ah, pare nag next week laa war a dem Sénégal takkul leen loolu noonu ma mu dew dem walk on lii ñun ñëpp Gambia am jaama ah. Gambia am jaama kooku moo doonoon Fatou Jagne ndeysaan di suma xarit di suma mag. waaw macha allahu taala mu doon ku baax ku oyof nag ku seen xol. ku mun a defal ni nag macha allahu taala kii ku baax la mbokk yi ñu santi leen gërëm leen bu baax a baax di jo jox digg daje next week nag dinaa fi am kullu politicien bu mag a mag a mag a mag te mu doon jigéen mu utu toogu bi man naa wax naa leen semaine bi jigéen ñi laa àndal ay weer bi jigéen ñi laa àndal defan jigéen ñi non jigéen ñi sax nga a àndal because taay yi léegi jigéen ñi la man jigéen ñi laa faral taay yi de waaw next week bu ko mbootee fii la nar a nekk fii lay toog jàkkaarloo man ma la ca kool nan la fas yéene yore réew mi ndax ñi nee nañu jigéen mu dara yore réew mi te moom nee e <laughs> na bàyyi fas da koy yore mën na ko kon nag dina fi ñëw next week Marisok Marisok xam nga man la ko wax na ko ba pare Marisol man waxuma la ko de mbokk yi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye di leen kontaan naa si yéen waaye mënu dem benn yoon te sant ma gërëm sama caméraman yu baax yi nga xam ne seen xool dafa set lu baax rek la ñuy def Fatou Netoog la fii moom dara du fi dem rong ñu sant leen gërëm ñu nuyu suma caméraman bi du Boubacar borom Kiang ah suma oncle moom man suur ki nga xam ne maa ko soppal suma boppam ñu nuyu leen bu baax mbokk yi ba next